out. très joli endroit bi waaw fii moom waaw dafa rafet macha allah piscine lépp am na fi waaw mais fii nag voilà ku dul pro ak sécurité bi amoo droit nekk fi voilà ku dul pro ak sécurité bi amoo droit dugg fii bu ngeen gisee sax yenn journalistes yi dugguñu fi voilà parce que gaañi moom. maanaam seen xel dalul si kenn te ku mel ni pro ay caaxaan waaw waruñu waruñu nangu ay caaxaan yu ñàkk fayda di di ko kii quoi. voilà baal leen ma si son bi coupé léegi baal leen ma voilà ñoo ngi nekk ak grand Paco Diaz am na ñu ko doon laajte sànq si live bi Paco nuy naa la. waaw maa ngi fay waaw mu mel ne takk nañu jàjj yi fas yéene jëm soor yoon wi naka lañ koy préparé ak tey la nañu mën a fekk Ziguinchor. waaw macha allah ñu ngi lay félicité ci liggéey bu am solo bi naaj bi tàng na ñu ngi gis yaa ngi bu am solo. macha allah pour woon Sénégalais yi. waaw di jox rendez-vous sénégalais yi ak patriotes yëpp fële ci Ziguinchor ndax depuis sept mois président Ousmane Sonko demul foofu ci Ziguinchor ginnaaw bi ñu ko tëjee kaso ba génne ko deux jours après si la dem Ziguinchor yamoo élection présidentielle mm-hmm. boobu ak léegi mm-hmm. demu fa gisul waajuram bu jigéen mm-hmm. bii nag mu nekk retour fële ci Ziguinchor ñu ngi wax gaa yëpp ñu focus te xam na ñoo ngi ñëw nañ ñu koj si suñu ay page Diaz PDG dinañ gis ay image mais Diaz Diaz image image yi doy na waar waaw Sénégal yi ñu ngi ñoo ngi jooyi image neen image yi dafa xeere dafa rafet macha allah waaw waaw bu ñu bu ñu nekkee Europe bàyyi lépp ñëw di ñëw di nekk ci watu le président Ousmane mhm. li tax mooy dañu bëgg mhm. di fexe di am ay image exclusivité yoo xamante ne mhm. ñu bari duñ ko mën a am mooy woon Sénégal loolu moo waral ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw ànd ak suñu kilifa suñu xarit président Ousmane Sonko pour offrir Sénégalais yi ay image yu belle yu rafet yu doy waar gaz kii nee na ban téléphone nga yor nee ko. Ah, ah. téléphone bi ma yor secret la. <laughs> secret la <laughs> mais mais Diaz benn question même question bi. waaw mooy dañuy def direct Ziguinchor wala dañuy am yenn dëkk yu ne. escale pour caravane. waaw léegi loolu. Mhm. itinéraire bi. Mhm. par mesure de sécurité. Mhm. du ko mën a joxe. mais nañu xam ne axe bu ñu toll. bu ñu duggee ci paasu Diaz PDG. dinañ ko gis. mu rafet comme ni ko waa ji laajee ban téléphone laa. nee na ban téléphone nga moo jaaxal ñëpp. téléphone boobu la <laughs> ñu merci waay mon patron voilà ba tey ñoo ngi continuer jazz la ah jazz moom kenn dootu leen ko présenté gis gis ngeen gis ngeen image yu doy waar yi muy dugal ah moom mooy Sénap lu si bëri Sonko buy génn voilà ñoom extérieur na nekk mais bu mbir yi amee dañuy ñibbisi ngir jàppale pro si liggéey bi ngir wane li nga xamante ni moom la ñuy liggéey am na ku ma wax sànq mais du ma la tontu am na ku ni ma sànq di nga tooy wutal vélo am na ku ma wax sànq de <laughs> mais mais abonné leen ah abonné leen abonné leen ñoo am objectif un million d' objectif un million d' am objectif un million d' abonnés amul bu disponible foofu xanaa objectif un million d' abonnés ah xaale ma dallu nii tuuti ñu waxtaan en attendant pros bi génn voilà voilà gaañaa ngi gaañ yi dafa mel ne gaañ yi waaj a génn ah. voilà dafa mel ne waaj génn voilà ñoo ngi génn pro ma ngay génn xaar leen ma dem voilà am ni pro mooy waaj a génn ah, mu ngi génn donc ma dem jage ji fële na le ma jage ji voilà voilà merci yéen merci yéen merci yéen merci beaucoup yéen it sant alhamdulilah voilà kuréel génn donc dañuy jage ji na mais sécurité bi samay waay lañ ñaa ah. pense que ni li ma tuuti moo tax ñu nekk samay waay li li ma tuuti moo tax ñu nekk samay waay ñoo ngi hôtel Azalaïk astafirullah hôtel Aljana bu Kaolack voilà promo yi génn na kii nee na Barthélemy jaar sa papa sonk ma ngi génn voilà sonk mooy ngi génn ne mu ngi ñëw ne voilà pro mooy génn na li donc xaar ma dem jege ji ko wan leen lu mu sol ah tey dafa mel ni koppati la sol de tey moom solul kap tey koppati la sol voilà xaar ma jege jëkk gaal bi ñëw na de jël naa la jël naa la man na ku may jël pour ma ñëw ñu foto wa yaa aco waaw ci kaw ci kaw waaxu waaxu day gaaw day gaaw waaxu bu gaaw Thank you. ñu naan dégager bi si. Ya şurada bırak. Tamam tamam tamam. voilà damay daw dugg sama oto damay daw dugg sama oto parce que pro dugg na si oto te bu convoi bi xasee ba départ rek